mbokkileer ku wax noo ngi leen nuyu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu waaw kay jërë ngeen jëf yéen mbokki sëriñ daar yi déglu nañ seen wax yi yëpp déglu nañ ko ñu ngi koy rafetlu itam ndax yéen iya, ñëpp kenn ku ci ne wax wane na gis-gisam waaw man de maa iya, maa ngi leen ci dolli kàddu yu néew rek li ma ci njëkk a seetlu daal mooy bis boobu ñu woote de ñoom bisub jàng la ngeen wacc bi seen daara yi dem ànd ak seen lenn ci dong yi bis boobu yéen da seen liggéey dana dana ci bis boobu te loolu lu jara bàyyi xel la ab sëriñ daara bisub bisub jàng waru koo sàggane ndax àddina ku ne xam luy dox di dem la te lu la was xam xaswan ginnaaw loolu moom ñàkk nga ko kon nag seen bis boobu ngeen nar tardé na ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax a baax ngeen dem na ngeen ko seet yéen ñi dem itam seen tur bàyyi leen xel ni seen pour tur bopp ngeen dem waaye dem demu leen fa ngir turu sëriñ daar yi ndax bari na li ëpp ci sëriñ daara yi maanaam woote bi ñoom ànduñ ci te duñ fa dem lu tax ànduñ ci te duñ fa dem dañoo yàgg am ay jafe-jafe yu baree bari lenn ci mbokk yi wax nañ ko benn ci sëriñ daar yi nga xam ne ñu ngi leen denc dafa ñu ngi leen denc ci kaso yi te attewuñ leen te xamuñ luñ def ñaareel ba li weesu woon ci at yii ci ci daara yoo xam ne dañ leen tas génn dong yóbbu yóbbu leen seen way jur loolu ñaaw na lool ci réew moo xam ñun ñoo ko bokk muy Sénégal ñu bokk kenn ku ne am suñ suñ tànn la la neex njàng ma la neex nga nekk ci ñun ñu tànn alxuraan nekk ci nga fekk ñu suñ daal yi tas ko di di delloo dong yi loolu te loolu mi ngi xewoon ci at yii at yii gis nañ fi suñ daara boo xam ne jéng nañ goneem xëy na way juroo sax moom moo santaan ñu dénk ko ñu jéng ko ñu fekk ko fa tëj ko kaso muy xaadim géey ñëpp xam nañ ko foofu ci Dakar ci parcelle am na sëñ daara boo xam ne foq nañ ci bëtam yooyu yëpp ay jafe-jafe yoo xam ne mi ngi weesu woon si yéen sëriñ daara yi bu leen fàtte loolu te ñu yéen ñi nar a wujji waxu leen ci woon dara te seen mbokk lañ ko teg te nit ku ne kam bokkal ab liggéey luñ teg koo ko rek day mel ni moom lañ ko teg kon war ngeen a métti loolu fàttaliku loolu bala ngeen a dem te ngeen bàyyi xel li ma leen wax bu baax a baax njabootuk jàmbur ngeen yor muy ay doomi jàmbur te seen way jur itam waroon ngeen laaj ba xam ne nañ ci ngeen ànd dong yi dem wuy ji wala wala wala ànduñ su ngeen leen laaju dem teew fa tooñ ngeen leen tooñ ngeen seen borom itam nag ndax ab jàngalekat moom ginnaaw da ngaa samp sa daara di liggéeyal yàlla yàlla rek nga war a am ci moom soxla waaye nag amma état bëgg laa woo ci anam goo xam ne wóor na fi ñoom dañ leen a bëgg a jëfandikoo donc ndax niñ niñ ko waxee nii donc ànd ak dong yi loolu maanaam espèce yi mitin rek la dañ leen a bëgg a jariñoo rek waaye yàlla taxut ñun nag yàlla rek moo moo war a jaral yàlla rek moo war a nekk suñu ité waaye adduna moom wata nekk suñu ité pour mën a am ci ma am ci ay ay tolof tolof te yoo xam ne yàlla ñu ko teg war nañ ko mën muñ bu rafet rafet rafet waaye itam waruñoo gëstu kenn la ngir alali àdduna ndax bañ jógee di samp daara dañoo wax ne dañuy jàngale ngir yàlla kon waaye rikk seen daara yi da ngeen bàyyi xel seen bopp baax baax te xam ne lii histoire da koy nettaliwaat lu ngeen fay jëlee itam lu néew lay doon bu leen fa joxee dara lu néew a néew lay doon fan yu néew a néew mu jeex ngeen desuwaat ci yàlla mi ngeen xam moo leen yoroon démb te fas yéen yor suba kon nañ bàyyi xel loolu baax a baax ñun daal am nañ koom mu rëy rëy rëy kon rikk buñ ko jaay nag ci meddum àdduna wala ñu di ko jaay wala mel ni ku yor wurus dem di ko weccee ci përëm loolu buñ ko def mukk alxuraan doy na lépp ku ko yàlla jox warutu am soxla ci dara ci àdduna lu may toog lu la yàlla jox rek nga jël lu mu la joxut nga gërëm loo ko xam ne loolu daa gën ci yow man daal loolu mooy sama gis-gis dem gi daal man lu ma ko anduma ci itam wax dëgg yàlla anduma ci rawatina bisu jàng bi mu leen di si seen liggéey bi rawatina doomi jàmbur yi ngeen nar a yóbbu len te tàggu leen seen way jur yi seen way jur joxu leen ci ndigal loolu daal rafet ma ko te itam maa ngi yaakaar ne ku ko def ko ne da nga ci am daanu suñu borom kon loolu moo ci sama xalaat maa ngi jégalu ñëpp di ñaan suñu borom mu jégalu ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu seen mbokkum daaru ci tubaab bi la moo leen doon moo leen doon dollil kàddu yi di leen siyaar yi ñëpp leen ndokkelu ñëpp wasalaamualeykum maratan saaniya